daanu rek est-ce que bëgg nga doon doomu président Karim Meïssa Wade jafe góor war na bëri jot bay lete wane di mën a naxe bay leketu kese ba nga toog xaar wërsëg dalay fekk si bul di xaarandi na sa tàng pënd est-ce toogati ba nga bëgg uti am indi nok chemin nan koi mo koy indi xamee yoon bu bon bu la ci kenn gindi lula bax may bon du ko dindi Jigen, jonge lenen, gor woyu tangal jabaru jambur, jambur du ca même bu la wowe ne ko da nga juddu di ñaan yalla bi jaaw sa ñaan nangu di nga ñuulal sa karaw sa jabar benn nek boko luwel war nga tala doxan bay ñaarel sa ñaari xel yi réeroo xam booy jubóol waaw adduna bi ñaari yoon la benn xel bi ngay jubóol mën nga nekk héro mbaa nga des ci zéro adduna bi ñaari yoon la benn xel bi ngay jubóol nga bëgg am bër di Ouzin Barigo am doomu mbër muy daanu rek est-ce que bëgg nga milliard milliardu faux billet doon président The Karim is the Yeah. Yeah. Señari Carriero, dosi kamboy ci boy. Aduna bi ñaari yoon la benn xel bi jey ci boy. Mën nga nekk héros. mbagatës ci zéro oh, aduna bi ñaari yoon la benn xal bi ngay jubóo nga bëgg am bës Ouzin Barigo am doomu mbër muy daanu rek est-ce que bëgg nga milliard milliardu foo biyee doon doomu président di Karim Meïssa Wade yeah Et voilà, très bien, il se nomme tout simplement Akou Mandi Mouri. Il nous vient de la Midina, rue 13, Angle Corniche. Euh, bienvenue et on est ravis de vous retrouver sur les antennes de la DTV comme toutes les semaines. Votre rendez-vous habituel, euh, plus haut, plus loin, plus fort. Euh, tous dont toi-même, tu sais, après avoir passé un très bon magal, mais aussi un très bon week-end avec les programmes de la DTV. L'actualité s'installe avec Pape Ousmane Sissé qui reçoit ce soir Monsieur Hassan Sissé. Monsieur Hassan Aliou Cissé nag moom ki nga euh, chargé des relations extérieures et coordonnateur du mouvement Karim euh, président à Pakao donc ñu y a lepp li nga xamantene rek euh, da fay soxal actualité politique sociale ba ci walu économie nak xam ngeen ne Pape Ousmane bu ñëwee yëf yi day gëna dem ci kaw ci kanam ci lu bax mais on est en compagnie de Sambou Biagi, notre doyen pour nous donner l'actualité sportive nationale et internationale quant à Abdoulaye bien sûr va nous traiter ce qu'on appelle le chronique sur le digital digital détox euh, tey ci loolu la nar a désintoxication numérique avec deux applications qui vont avec euh, donc ñu nar a waxtaan ak moom lépp li nga xamante ne rek dafay soxal la haute technologie bien sûr et pour finir avec Valérie Valérie avec l'actualité musicale euh, nous fera un dossier aujourd'hui donc bu ñëwee ñu gën ko yaatal na xam ngeen ne Valérie nit ñi dañ koy nam lool les mercredis et les vendredis et pour finir bien sûr elle est là madame Bonardi muy ndaanaan moom tamit di def yu ama ama am solo la sublime Adjara Sissé pour l'actualité de l'Internet, les propos recueillis fraîchement, bien sûr. Donc, moom lañ ci donc tout de suite et bien sûr euh, ni ñu koy tàmm di defee comme ça euh, su ne rek ah crew euh, Mandu Mori tey moom mooy Ganou, ki nga xamante ne mooy toi-même tu sais version musique ginnaaw nuyu naa la maa ngi lay nuyu bu baax. Ah. maa ngi lay fay maa ngi lay fay naka yi tey. sant bu baax bàyyi am mais morceau bi morceau engagement de. ah waaw waaw am engagement parce que musique nous may def musique engagement la. d'accord tu vois parce que damay xool li sénégalais yi di wax ci ne ma waxu ci kaw. nga fësal ko loolu kese laay def. Je accord defuma yokkuma ci wàññiwuma ci. Ah. et puis créé D'accord. ma dara. d' accord kon tey boo toogee ak koo un ne euh, bokk na ci njabootu. Euh, day neex day neex ah dana ah. ah. très bien bonsoir monsieur Hassan Cissé. bonsoir vous allez bien. ça va bien merci. voilà très bien donc tout de suite sans plus tarder nous démarrons l'actualité de l'Internet présentée par Adja Rassi. Nous y revoilà. Le procureur, bien sûr, euh, je serai sans pitié avec les assassins, euh, selon Sénéweb, n'est-ce pas, Vous l'avez dit, Nicolas, la récurrence des cas de meurtre ces derniers temps, euh, les uns plus odieux que les autres, a commencé à susciter un certain sentiment d'insécurité chez les populations sénégalaises, suffisant pour que le procureur de la République monte au créneau, serine Bassirou Gueye, qui s'est exprimé sur l'ensemble des dossiers de meurtre qui ont défrayé la chronique. Ces derniers temps, assure que le parquet diligente les dossiers pour le euh, cas des crimes que je viens de citer, dit-il. Dès lors, les meurtres, les de Ibrahim Sam et de Madame Fatouma euh, Mokhtar Ndiaye, c'est la peine des travaux forcés à perpétuité. Euh, pour rappel, Fatouma Mokhtar Ndiaye est la défunte vice-présidente du Conseil économique et social, et environnemental. Fatouma Mokhtar Ndiaye a été tuée ce samedi à son domicile par son chauffeur. elle a été exhumée aujourd'hui une inhumé d'humain ce lundi au cimetière de Pikine donc justement Seneweb dafa ñëw ci li nga xamante ni moom mooy euh, euh, li euh, procureur bi donc justement du parce que gis nañ ni temps yi yëpp sama doom baay la donc gis nañ ni temps yi yëpp

Euh, Mactar Gueye nga xamante ni moom Ndiaye euh, du mois mm-hmm. euh, nga xamante ni moom la ñu faatoon bakkanam temps yëpp en même temps ñu déglu procureur bi ci li nga xamante ni si la Seneweb ñëw ci naqar tiis la askanu Pikine Ouest yeewu niki samedi bile lu ko waral vice présidente conseil économique social et environnemental di Fatoumata Matar Ndiaye moom la ñu faat bakkanam ca biir këram. lu ñu wax bu newoon ci mbedd dinañ wax agresseur ci ci tali bi ku ne yónni na rakkam kaay demal jëndi pe ngu mburu ñu ndékk ñu fekk ko fa rey ko mais nañu seetaat yëf doomam bi tamit ay gaañu gaañu yu metti la am ci boobule mbir jamono ji sax mu ngi ca hôpital Aristide Le Dantec. doom bi mu ngi hôpital mu ngi ci réanimation. njaboot gi jamono ji ci nakar ak bu metti lañ nekk ndax mbir mu ni mel da leen daal di dépasé témoignage yi benn la Fatoumata Matar Ndiaye nekkoon na koo xam ne amoon na ay relation yu baax ak dëkkandoowam ak ñii nga xam ne ñoom la doon liggéeyal. soxna si dama koo xam ëpp na léegi lu moon vingt ans ñu ngi ànd man ma nekk responsable jeune région Saint-Louis yore donc jeune département Podor moom mu yore jigéenu département Podor boobu laa ko xam xam yitteem xam taxawaayam xam fitam nu mu jigéen waaye nu mu nit. nu mu buggee njabootam nu mu teppee ci ginnaawu jëkkëram ba yàlla moom ko tey ji mu ni mel xamaguñu ba léegi lan moo ko waral polis ubbi na l'enquête chauffeur bi ñu ngi ko teg loxo waaye tamit ñeneen membre ñu bokk ci famille bile ñu leen daal di déglu ci boobule mbir Bom nit mi ngi bëgg a bëri fii si ndakaaru li koy gis nañ ne jamono yi ci bu yagul dara rek boomoon nañ fi man bi di Ibrahima Samb bërki dee mo ñu bom fi itam ki nga xam mom modi di Fatoumata maktan jaay ki di procureur de la république mi ngi xamle rek ni loi bi dinañ ko appliquer ci ni mu gëna gaawé li nga xam nak moy mbiru madame Fatoumata njay enquête bi avancer bu gaaw macha allah ñi nga xam ñu mënoon def ay témoin lañ leen di ñoo ñu déglu nañ leen. ñi nga xam ne li nga xam ni foofa ca fi mbir mi xewe am na ay yuñ fa mën a jël ak yuñ fa mën a photo ak yuñ fa mën a filmer def nañ ko li nga xam ni mooy ngànnaay li ñu raye soxna soosu gaañe ko doomam jël nañ ko ki nga xam ni moom la jàppoon ni xëy na moo def mbir mi déglu nañ ko moom ci boppam nga moo doon chauffeur bi doon dawalal soxna soosu ne nangu na ni moo ko rey. comme ni ko code pénal waxee ci article 287 ku rey nit te tey ko dañ lay tëj sa giirug dund te loolu procureur nee na dinañ ko appliquer. mu topp ko pour li ñuy wax assassinat maanaam rey nit te tey ko te laloon ay pexe avant ngay def loolu ay mbir la yu doy yu garaaw waaye Sénégal aussi prévoir nañ ay daan yu mag a mag a ci yu mel noonu te daan yooyu moo di ku def loolu dañ lay tëj kaso nga liggéey fa liggéey travaux forcés te danga ko def sa ngir gi dund doo génn kon loolu moom la réew mi sartonteeg ku def jëf ju ñaaw yooyu kilifay réew mi takku nañ bu dëgër ngir jëf ju mel nii ku ko fi def dañ la daan daan yoo xam ne nii kenn du ko fàtte kenn du ko lam-lame ci samedi bi ñu génn ci juróom-ñetti waxtu ci suba la ñu boom ki nga xam ne moo di Fatou Makta Maktar Ndiaye moom nekkoon conseiller économique sociale et environnemental ki ko boom nag chauffeur am la jëf ju ñaaw ji gën na ñëw yokk nit ñi nga xamante ne ñoo ngi leen boom gannaaw Ibrahima Samb taximan bi lee

internet bi fo dugg tay lolou mo nekkoon waxtan bi est-ce que jotul euh, ñu ñëwaat rek ci li nga xamante ni moy peine de mort donc ku nekk mu ngi ci wax mais xamna ni ne après dinañ ci gëna am ay leerlu hmm. donc justement lolou mo gënoon fës tay ci première actualité très bien merci beaucoup Adjara Cissé pour la première actualité de l'internet selon euh, li nga xamante moy mooy Seneweb waaye di jalé bu baax ñi nga xamante ñom ñoy euh, mbokk ak xarit ak soppé ak ñi nga xamante ay collègues lañu ki nga xamante ne moom moo la rot donc Pape Ousmane man fi may njëkkee rek moy ban Sénégal lañu muju nekk fu mu toll nii ndax jamono yi ni kenn nekkatul ci seen bopp. ñu ngi ko doon wax euh, bu yàggul ah bi nga xam man bi ah, ni Sénégal liñ ko yàggoon xamee buñ demee ba jamono ji ñuy dégg ay yematoo ci sax jam nit bu boo jamono nit sax. ñu gis deret di tuuru da ngay daw tout le temps dama koy rappeler parce que on a été bu baax. deret naka lay def ci yow ci sa bopp doo sax nelaw. Euh, ma am ci ay yu bëri xëy na temps bi di ko maye pour ñëw wax la rek ni. woon deret par sama rakk bu ñu daan jàng alxuraan.

ma jël xeer sànni ah. bi muy sëggi bi muy tourné rek mu dal ci xeer bi mu nàcc jour boobu tëdduma nelaw pour rek wax la dret boo gisee ah hmm. mu nàcc bopp bi ma parce que tout simplement dret tey bu ñu demee ba yematoo ci jam mais nga égorgé nga rendi nit ki rendi mais loolu c'est c'est c'est-à-dire ci yeneen réew yi lañ ko daan dégg bu ñu ñëwee tey ba Sénégal ñun jeune te ki ko rey jeune la egg ci niveau boobu noonu mais moo indi loolu lan moo indi ba ñu yegg foofu xaalis xaalis bon d'après ce ñu wax li déggu parce que procureur même nous ñu ko di laaj mais nangoo ci egg parce que le dossier est venu juge d'instruction pour li ci l'enquête. mais ce qui est sûr d'après rapport yi ñu indi mooy que 300 000 francs la ko parce que le gars il devait se marier en fin fin fin novembre certainement pour le ko de bi donc ñu am ameloon Khalis, wala la bon ne exactement ndax daf ko amelon wala mais ce qui est sûr mooy dafa ñëwoon ci chambre la dame pour doon vérifier don mel ni daal kuy jël xaalis femme bi surprendre ko fa après ñu am ay moy yu ñu échangeante ci lii wala le jox ma li nangam exactement xamna xamante ne ñu ko koy ñu ngi jot di di di gis ci internet ñu ngi di wax nu mu donc justement dafa melni ni que dame bi dafa amone xaliss bu tàkk bo xamanteni dañ ko ko joxoon mu tollu ci ay millions pour euh, pour euh, pour financement ben ay femmes donc mu justement ki bi chauffeur bi ñeu andi ko ko jox ko ko pour mu denc ko donc femme bi denc ko peut-être confiance bu mu amone ci chauffeur bi en même temps ce chauffeur je pense am ngeen affinité yo xamanteni day dem ba melni ko xamanteni xamante si yow la bok donc mu andi ko xaliss bi mu denc ko mom déjà chauffeur bi xam na xaalis bi nekk donc après justement mu demat peut-être diko diko diko ko di ko di bi ngoy koy nak si la femme bi ñew bet ko mu bet ko legui si la jëf ju ñaaw jooju amee hmm. doomu femme bi bet lool aussi mu nekkaat beneen accident boo xamante ni tey euh, doomu femme boobu mi ngi ci ay euh, ci ci loxoy euh, médecin yi donc nee nañ jëlee na ci ay gaañu gaañu yu métti mais état am stable na donc justement pour apporter beneen très bien donc comme vous le savez ah hein, l' enquête suit en cours donc li ñuy def rek moom mooy waxtaanee waaye c' est important Sambou Biagui li nga xamante ne jamono ji ñu ngi koy yëkkati ci réew mi di wax ne peine de mort est ce que lii du wane ne mët na ñu def ko waaw mais xam nga man suñ ne peine de mort dama ci xaw a suma xel def ci jéem a daf ci xaw a tey xam nga lu tax. déedéet tey jii kaso bi bari na ay innocent il faut que ñu am justice boo xamante ne vraiment dina nekk justice bu équitable pour képp koo xamante ne bu ñu yóbbee kaso rek ñu xam na yow yaa ko def. mais tey kaso bi am na ñoo xamante ne ña nga ca kaso ba mais defuñu dara. xëy na peut-être ki ñuy àndal dafa am avocat bu baax. wala amna lu ci lu ci la. mais mais mais mais boy dégg ñi wax tamit peine de mort Pape Ousmane. da fay woné né ñu ñu ñooñu dañuy def dañu comprendre dañu comprendre également peine de mort duñ da nga ñëw rek ñu ray ñu rey ko. voilà dafa am ay règles dafa am par exemple. ay critères ay critères. ñu mëna a sukkandiku pour wax ni ki war nañ ko mëna ray war ñu ko ray amna ci ñeent ñett ba ñeent yo xamantene wax nañ ko duñ ñëw rek ni peine de mort. d' accord ni c'est bon aussi ñu xam lool parce que parce que xam nga parce que même peine de mort bala muy am fi dëkk yi am peine de mort dañ lay juger. bien sûr dañ lay juger ba ñu xam né yow ya def li ni mel doivent appliquer la appliquer peine de mort mais vous faites qu'on appliquent la peine de mort et que euh, nit gens na mën nañ ko rey fekk deful dara gis nañ fi a ah, ñoo def nañ prison pendant 10 ans ñu dem cour d'assises après ñu blanchir les mm-hmm. gis nañ ko fi du du donc man pour man la peine de mort peine de mort bobu di bëgg naa mu ñëw mais balaa muy ñëw il faut que ñu am vraiment justice bu. d'accord justice c'est-à-dire mu ànd ak disposition yëpp yi ainsi de suite parce que sinon euh, li may ragal mooy dinañ rey koo xamante ne deful dara mais am na ñoo xamante ne ay flagrant délit la flagrant délit loolu jarul sax pour man mu dem justice wala ay enquête kooku day rey tout de suite nga nga éliminer ko. pour man euh, voilà la société bi noonu la war a noonu la war a mën a doxee mais sànq dafa am l'opposé. muy lu am solo parce que da nga jaaxle comment se fait-il que kii mu mën a rey nit gis nga dëkk bi il faut que nous sachions drogue la drogue circule dans ce pays une un homme lucide vraiment lucide mënul sëgg ci nit nga ne dañ koy il ku lucide mënu ko def kooku li si dul rek. mais tamit des ci tiitaange tamit. Nicolas. Ah? que ci nit mun ngeen xeex. nit mun ngeen xeex. nga yore paaka nga jam ko parce que ci xeex ngeen ne. mais nga jël nga am motivation nga ne kii dama koy dem rey parce que boo gisee mu yor paaka. c'est parce que moom préparé na déjà rey ko. da koy rey jël xaalis bi. mooy prémédité. mooy prémédité. bu ko fekkoon foofu da koy rey jël xaalis bi. dem na foofu fekk ko foofu. ndaw si moom moo ko fekki foofu mu rey ko ça veut dire que tout simplement mom dafa daf ko daf ko daf ko sooraale ça veut dire qu'il n'était pas lucide la réalité c'est ça donc lui mu ngi circulé ce pays là il faut ñu xoolaat lolu très bien c'est important monsieur Hassan Cissé parmi nous ce soir donc euh, bokk ci euh, Karim euh, président ngay taxawul wa Pakaw ci ci ci yëf bu mel non mais tey vous en dites quoi par rapport ak li nga xamantene mom lañ la ñuy wax ci walu peine waaw salam alaykoum alaykoum salam ngi leen nuyu bu baax di leen

la justice bii nga xamné actuellement ni rek dafa tassaro magistrat yi actuellement dañu am problème parce que Macky Sall daf leen bëgg a imposer koo président Macky Sall président Macky Sall daf leen bëgg a imposer koo xam déjà war na dem retraite donc ñu bëgg a 65 à 68 ans pour que mu mëna top donc moy moy qui ki mu choisir voilà donc justice bu demee non aussi vous inquiète trop trop trop monsieur. parce que man dama tiit ci opposition bi man opposition bi sax la yërëm parce que li yep, mën peut utiliser après contre nous. parce que man peine de mort bi man vraiment man dalu sama xel ci juridiction humaine. Déjà, la déjà justice bi jaxasoo Les magistrats yi Les avocats yi contents. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas confiance à notre justice. non non non justice bi moom franchement. pour que nous appliquions ay peine de mort wala yu parce que tamit mën nañu dem gis ne benn par exemple à Cissé bëri na il parle trop. bon ñu dem. est-ce qu'il parlent pas trop aussi. bon non non bon mais même si tu parles trop mais avec l'essentiel nga wax deug rek wala nga wax li nga xamné mom moy mooy bi très bien mais mais des fois da ngay déranger parce que on a affaire à des gens yo xamné aussi tamit il faut ngeen bay xel hein. ils sont capables hein. ils sont dañoo capables d'accord Abdoulaye High Tech vous hein. pensez quoi moi je pense que les les choses vont de mal en pire quoi parce que nit yi buñ démé collègues ba léegi di tuer d'une d'une manière froide jot nañu juk xolaatuñu karangé rew quoi comme niko Biagi biyaagi je pense que affaire ici à la base parce que léegi nit ñi amatuñu yermande tu vois en un mois il y a eu combien de meurtres. Mhm. te meurtres bu ci gëna a odieux sa morom nga bi kérok taxi man bi pistolet lañ ko tek sur la tempe tiré ko loolu kañ lañ ko don gis en Afrique. Mhm. plus précisément au Sénégal nga xamni ne religion la dëkk éducation la xolal ki maire jigen nga plaqué ko rendiko il paraît que chauffeur bi maître de de de kung fu la won tu vois donc pour te dire que mom même liñ ñu leen doon jàngal ci sen ay truc de con, vous m'avez koy utiliser ci donc ça c'est vraiment horrible quoi Moi je pense que accessibilité drogue bi là. donc à chaque fois nous avons koy dénoncer c'est à la portée de tout le monde tout un chacun mon na am accès ci drogue vous pensez que c'est réellement le le drogue non mais c'est ça parce que moi je pense comme Nico pas Ousmane Wahé, deret beaucoup beaucoup bu ko gisee deret jël lay set dagg nit rek yow a plus forte raison nga c'est une vieille dame tu vois mu une dame en plus nga plaqué quoi rendi ko su fekkoon da nga ko jam là au moins on aurait compris que da nga am parce que ça c'est c'est vraiment acte de barbare c'est l'extrême barbarie quoi rendi nit plaqué ko monter de nga rendi ko loolu c'est loolu loolu ku ànd ak gomme du ko def franchement parler te daanuñu ko au Sénégal tu vois mais bon, mais pourquoi bu koy gis na man peine de mort je suis entièrement d'accord pour ñu teg ko parce que par exemple rien rendi nit lan moi, koy fait...

yàgg nañu ray yàgg nañu def lu gëna a pire léegi Sénégal lii ñaawteef yàgg na fi tu vois mais légui internet motax lepp lu am légui légui da nga ciy jot légui léegi tu vois te té té li ñuy wax lii raam ci ñag ba la jëm tu vois je suis pas d'accord accord ak peine de mort aussi parce que parce que justice il faut mu équitable d'abord ngay dogo tek peine de mort parce que ki ngay juger diko ko après cinq ans plus tard boo déggee né deful dara ñun ñëpp day day day day day. dafay dafay dafay doy waar quoi tu vois déjà y' a beaucoup de trucs qui se ñun dañ ciy gëm y' a beaucoup de trucs yoo xamante ne ça se passe parce que yi ci lu ndaw lay commencé ah. ci lu ndaw lay commencé lu ndaw lay commencé waa ji maa ngi dégg ñu ne waa ji daanul drogué wu.

mais 14 heures kenn bëggul am milliard kenn bëggul am milliard non 14 heures la yeewu t'as ci man man mën naa yeewu heures tey suba ma bëgg am milliard dam série télévisée yi ñu lay wan dañ lay jaay rêve effectivement te alors ko ñooñu di ko tourné sax ñu loolu parce que ñooñu di ko tourné dañu koy pour ñu fay leen xaalis pour ñu mën a dund tu vois mais ñun rêve bi la ñuy américain bi rêve la ñuy jaay il faut que ñun ñu yeewu il faut que ñun ñu yeewu ñun ak ñoom bokkuñu ñun dañoo am diine am base am ay wasiila am yenn affaires yi mais bu lii demee ba am donc ana li fi ñooñu liggéey d'accord ah

Euh, nous allons traiter la libération de Karim. On parle de euh, Dora, hein, une libération non savourée. Euh, man kay lu ma ko njëkk a laaj dafa ne Karim ñoom dañu ne Karim mouvement Karim président. damay ragal loolu la ñuy wax. maanaam bukki bi màntoon bi ñuy wax naan Idrissa Faure président. Mhm. ñu gis li xew 2012. Mhm. est-ce que ragal leen lu mel noonu màtt leen yéen tamit. ci teel a wax Karim président. Mhm. alors xam nañ pour doon président dafa am foo jaar. bukki bu màtt dina lekk de. bu bu <laughs> moom boo xasee wantu mu de. waaw baax na dinañ ci ñëw Karim Karim bëri na fi mu Karim am na am na ay jaar-jaar. Mhm. ay jaar-jaar yu bëri. donc affaire yi ñun xëyuñu rek ne Karim président. Mhm. donc dañ ko topp dañ ko yàgg topp. depuis muy ànd ak papam di liggéey. ñu naan ko ministre de la terre du ciel. xaw ma de l'eau. waaw waaw de la mer. Mhm. mais boo xoolee yëpp xoolal ministère yooyu. fépp ne rek amna na lu fa def lu nit meuna tek teg hmm. Sénégal mosul am compagnie bopam ministre du ciel boobu ñuy wax. Euh, Abdou Karim Wade mo fi indi euh, senegal Sénégal Airlines fu mu mujj. Hmm? fi mu mujj mooy bi nguur gi ñewé après ñom ñoko terrasser <laughs> donc lolu jaru tax ñu ci ñu ci ñu ci ñu hmm. euh, Karim Wade mo fi indi Dubai pour World ministre de la mer boobu ñuy wax. donc tay jii nii am réalisation yu bari Abdoulaye Wade bi mu Sénégal bi mu amee indépendance ba légui 90 réalisation yi fi am. yi Ablaye wat réaliser 60 pour man mën na wax né Karim Wade moko réaliser d'accord nañ ci ñëw ana Karim. Karim mu ngi doxa. mu ngi doxa. Mm. Euh, kañ nga gëj a dégg teg moom. mais dégg naa foofu moom ba léegi prison la ne prisonnier la de <laughs> parce que mënul ñëw mënul génn parce que bu mënoon génn dinañ ko gis France dinañ ko gis mu dem seeti papaam. exactement ah. waaw waaw Karim Karim dañ ko jaay doole. Hmm. dañ ko jaay doole ci lépp. duñ koy jàpp dañ ko jaay doole dugal ko kaso. dañ ko jaay même duñ koy génnee dañ ko jaay doole. jaay doole tamit bu ànd ak saraxu. parce que mm-hmm. tamit waaw. parce que mm-hmm. Macky Sall dem na fi ba Touba dem ci xalif général de Mourides ñaan ko ne man xam naa ne maay président waaye sénégalais bëgguñu ma. Karim la gaañu bëgg te mu ngi ci kaso bi bu génnee fii mënuma ah bokk moom dëkk bi. ay sëñ bi li nga dimbali ma rek ah bon yow sa président dafa ne génnee mu dem bu mu fi toog bu ma gêné bu ma sonal. donc Karim aussi nekk nekk ku dégg ndigal nekk taalibe mm-hmm. waaw dégg ndigalu sëñ bi boo xoolee jour bi muy génn taawu sëñ bi ñëw na ñëpp ñëw nañu bon. après mu génn dem mais terewul ñun ñu ngi fi ah ñun ñu ngi fi ñu ngi koy teewal. mais li waral génnam rek dem foofu directement. tey saafantewul ak yéen yéen ñi nga xamante ne. guddeeg mm-hmm. bëccëg mm-hmm. yaa ngeen ci doon sonn di ci daw di ci wax di ci def ay jéego yu am solo. bi mu mu eggee le lendemain sax bind na benn communiqué yónnee ñu ko. xam nga di jéggalu bu baax. ñëpp kay la ko ci loolu. waaw waaw jéggalu na bu baax ci loolu. wax na aussi tamit ne condition yi mu génnee moo ko permettre pour mu ñëw waxtaan ak nit ñi donc loolu aussi tamit. Euh, foofu nga mën a yem ah. léegi nag moom rek moo mën a ñëw expliquer. waaw d'accord moom laa la laaj fan la nekk jamono ji ngeen mu ngi door. waaw waaw kañ ngeen mujjee déggante. man de bi may mujjee woo bi mu daan wootee woo dama le 15 juillet bi passé. juillet août septembre octobre novembre trois mois. waaw ci ginaaw lu ngeen waxtaan. boo xam nga tamit kilifa lu la woo téléphone. ngeen waxtaan boo nga koy wax maanaam li nga xam ne. man wóor na man lu mu gàtt gàtt di ngeen wax lenn ci réew mi. ci mm. actualité lu mu gàtt gàtt. ci leen laaj loo xam te ne intérêt askan wi la. Mm-hmm. mu am ci benn position bu mu affiché. Mm-hmm. bëgg soit yéen ñi fi nekk ngeen dox ko. Mm-hmm. wala ngeen wax ko ngeen taxaw ci. wala moom mu am lu muy waajal ci wàllu élection ak biométrie fi jàll génn nañ coow li fi yëpp. xanaa lu mu gàtt gàtt même bu fekkee ne comme kii ni mu ko waxee mu ngi duwaa mais mënut a yëngatu. xanaa dinañ wax lenn lu ngeen mën a jëlee position. ci wàllu man man man li ma ko wax. Mm. peut-être mën koo wax Ah, maanaam hmm. man du Karim sawaat Wade laa doon maanaam laa doon défendre man dama doon défendre benn sénégalais boo xam ne dañ ko dañ ko dañ koo bëgg dañ koo tooñ ci sama tur dina jafe lool ñi lay déglu gëm loolu noonu waa xaaral ma ñëw dañ koo tooñ ci maanaam dañ koo tëj kaso ci sama tur man dañ ko condamné ci sama tur d'une façon bu injuste man am naa droit ma ne maa bañ

Euh, ñun nous reçoit, nous ñun karimistes yi ñoo ko choisir suñu bopp euh, organisé wu un peu partout ci réew mi foo tourné gis ay mouvement de soutien ak Karim xamal ko carrément tamit ne ko amatul droit mu mu abandonné Sénégal amatul droit mu laisser tomber euh, la jeunesse sénégalaise bi nga xamante ne dañoo porté ci espoir bu donc loolu aussi tamit moom il est conscient de ça. D'accord. Le lu non amul problème amul solo waxtaan nañu. man li mais est ce que mën nga ma wax tamit ñetti critères yoo xamante ne moo tax le porté Karim.

ah dama am tig rek ah mais d'accord lu mu wax ci scandale yi premier point bi nga xamantene mom bok ni ci li tax mu porté scandale bi gën a Sénégal mom lañ ko mooy ban moom lañ ko jappé détournement fonds six milliards non non du détournement de détournement de deniers publics du loolu de enrichissement illicite d'accord waaw ah. léegi deuxième point bi deuxième point ban non li trois points yi nga li tax nga nga porte ko non enrichissement illicite bobu ci la bëgg wax ci benn bi waaw demal enrichissement illicite bobu mais lolu lolu amul parce que tamit nit ki nga nga nga condamné ko ci base ci ci à la base de ay ay ay ay jël alalu jàmbur attribué ko ko par la force boole ko ñooñu ñëpp dugal ci kaso bi. ah nga ne te ñooñu ñëw nañ ba tribunal indi nañ seen i document indi nañ seen i preuve indi nañ seen lépp ne ñun ñoo moom suñu alal suñuy preuve a ngeen yi ku wax le contraire indil say preuve. ba fi may wax ak yow nii amul kenn ku indi benn preuve ku leer hmm. la preuve fan nga xamee ne mais toogoo ci li ma la laaj de ñetti critères yi tax nga xaaral ma expliqué ko tuuti rek ah. ci ci ci ci ci enrichissement illicite boobu muy wax d'accord maanaam danga ko bëgg a xamal ko ne loolu amul loolu dañ fa jaaroon rek pour maanaam benn candidat la boo xam ne gars yi ragal nañ ko léegi tous les moyens sont bons pour ñu éliminer ko donc ñu ñëw dem dugg ko ragal en 2012 waaw

donc point boobu moo tax nga ànd ak moom. boobu bu njëkk bi man bëgguma injustice. waaw bu njëkk bi. ñaareel bi aussi tamit Karim Wade euh, biñ koy dugal kaso ñëpp gi doon wax naan doomu tubaab la dafay jooy dafay feebar dina def nangam mais bi mu nekkee kaso ñu ko fa yóbbu sax moo leen gën a nekk ci jàmm parce que ñoom ñoo doon daw di remuer ciel et terre pour génne ko donc foofu ngay xamee ne kooku kon macha allah <laughs> kooku doy na doy na njiitu réew. Il ay ouverture ci comprendre popularité lolu mo bok na ci li tax nga popularité non non non dama gis ci mom ay qualité yu ma doy dama gis qualité goor il est intelligent kat la da def na fi ay réalisation hein? pour mu yor non Il góor non wa mais lolu la lay wax xam nga même bu yoron yoroon réew mi tey dafay ànd ak ay nit doxal ko donc tay man mën naa wax ni Ablaye Wade ñu mu formé ñep ñu mu formé ñep Karim Wade bokk ni ci ñu ci gën taxaw. ah waaw munoo wax lénen ah, ah mais dafa ñemee wax lénen ah, justement ngeen def euh, seen euh, seen mouvement Karim euh, président. Mhm. donc mu nek lo xamanteni ni day ñëw rek feggaloo ak PDS. Mhm. donc justement est ce que magu PDS yi. est ce que ñom reconnaître nañ leen est ce que yeen am ngeen seen place. Mhm. ci bir PDS. waaw loolu tamit dinaa Sawara tontu trop parce que question La souvent il faut gagner, mouvement de soutien à Karim mouvement de soutien au Karim pas mhm. une base affective de Karim Watt base la base pas mais parti bi nak euh, parti bi daf ko bokk wa PDS. ñun bu tamit mouvement wax parce que bi fait nañu xajal nañu te lu ñuy def aussi dañu ciy boole ñuy sóoraale loo lu ñuy defee dañ naan karimiste yi ñoom du ñu wax karim mouvement nangam mouvement naam karimiste yi la ñuy wax donc xam nañ ne aussi tamit ñun Nous, you spontanément Nous, ci politique mhm. expérience politique seulement ay conditions yu ay benn situation sommes tegu ñun ñu d'accord waaw Nous sommes bokk sénégalais très bien aussi que euh, oh non vas-y vas-y vas-y ah, euh. mhm donc euh, non vas-y vas-y Samba <laughs> en fait euh, damay damay dellu tout tout tuuti ah. mouvement Karimi, parce que li ci tout mhm. c'était la génération du concret mhm. est-ce que am na loo leen jàng ci génération concret mhm. ba loolu de du leen dal parce que dañuy faral di wax la politique c'est l'addition des voix euh, et que la génération du concret c'était des militants du PDS beaucoup génération que vous avez analysé tout ça pour que ngeen mën a taxaw mouvement bo xamantene ne ëllëg li leen di xaaree di ngeen ci répondre. wa xam nga tay bo jëlé génération du concret nga jël karimiste bo xolé xoolee ñoom beaucoup see sax jamono parce que jamono génération du concret boobu xaalis amoon na. PDS moo nekkoon ci pouvoir bi et tout donc ñu ci bëri suñu ñun karimiste dañoo mandu won ci politique. xëy na peut-être amoon nañ affection ci maître Wade tax nañ ko suivre. non dama bëgg wax lan lan ngeen di yokkal xam nga kii daf posé sans question par rapport ak yéen ak waa PDS. seen intégration ci biir PDS lan ngeen di yokkal PDS tey. Mhm. loo xamante ne en matière de voix la. Mhm. parce que tey boo xoolee mouvement de soutien wu nekk Sénégal yëpp euh, yu ci bëri. responsable bi nga xamné ne moom moo mouvement bi wala ki koy coordonner mhm. responsable le bir PDS. justement mom la lay wax ni est ce que c'est est ce que lolo? parce que génération bi concrète loolu la doon def. wa non non non génération. amul preuve plus value bu mu apporter. xam nga dañ do utiliser des responsables du PDS ñoo xamné ñi ngi déjà dans le mhm. PDS. Créer euh, génération. du génération du concret dañoo dañoo nek ci dara ñom dañoo fekk dara ba paré di dund lolo. ñun dañoo fekk fu dara newul ñu ñëw pour def fa dara. Mhm. waaw bokkuñu sax mission. bokk leen mission fan la fan la nekk ci réew mi fan. partout Sénégal foo dem am ñaata ñaata ngeen fi mu ne nii jamono ji. bu ngeen jamono yi nag su ma su ma limee damay juum. non da nga ñu war xanaa quand même benn mouvement bu mel ni yéen. daaw structuré daaw demoon nañ ba mais diggante daaw ak ren tamit liggéey nañ ci liggéey bu am solo. lan par exemple liggéey bi mooy lan lan ngeen di def yéen pour massifier seen mouvement. pour massifier bon ñun dañoo créer mouvement bi taxaw képp ku ñëw. bëgg liggéey xariñ parce que ñu ci bëri aussi tamit bëggatuñu bokk ay parti politique parce que dañuy gëm dañ leen gëmloo né politiciens yi lay waxatu dëgg politiciens yi duñu duñu dañuy dañuy war politiciens yi nangam légui ñom ñu dem ba manam bëgg nañ politique mais bëgguñu ko leen tuddé politiciens légui ñu ci bëri ci ñoñu nak ñoo dugg ci mouvement de soutien yi léegi loolu ñun loolu mooy suñu doole. Mhm. parce que ñun ñu ci bëri ñun dañoo récupérer ñi nga xam ne dañoo mer bëgguñu ànd ak politicien bëgguñu politique mais dañ ne dañu bëgg a dugg ci benn mouvement pour jàppale Karim. d' accord mais Kourouma Ndioumori laa bëgg laaj moom mhm. wooyam bu rëy bi mu woy ah euh, jëmale ko ci euh, Karim Wade moom mii di karimis, dégg nga li nga xamante ne moo koy wax sa xel lu mu lay jox. bon man man aussi amna na am na benn question bu ma ko bëgg laaj sax moom dèjà. Ah. mais lecture ban lecture nga am par rapport ak moom défendre ni muy défendre Karim ak sa woy bu rëy bi. bon loolu la ci loolu ñëw ah. hmm. comme genre Sénégal lan moo tax képp ku bëgg riche léegi politique lay def lan moo képp ku bëgg am xaalis quoi léegi politique mooy moyen bi gën a pour am xaalis parce que boo le boo seetee Sénégal même boo seetee Sénégal politiciens yi ñoo riche la plupart da ngay gis koo xamante ne day nekk ministre tey day sonn démb nekk ministre six mois mu mel du monde.

dafa am pouvoir pouvoir judiciaire je pense moi ak pouvoir bi président am ak peuple exécutif ak peuple bi tu vois te man damay seetlu la plupart li am li am ci kaw day am deux ans plus tard ñun ñu ciy doog a jot tu vois Sénégal boo seetloo bu bu bu coupe du monde jotee ñëpp dañuy nekk ay coach tu vois bu dara bu bu bu làmb amee ñëpp dañuy. chaque fois day day day day varier quoi. d'accord tu vois selon l'actualité. tu vois Macky day ñew la apporter être affaire yu bari yu peut-être mi ngi tu vois Macky est-ce que Karim est réellement libre on sait pas. parce que beaucoup de gens le disent hein, lan lan on sait pas ak presse bi nek Sénégal yëpp ñu mënuñu am lu ñu leer yaa ngi yaa ngi imaginer quoi chaque jour suñu xel amna lu ci gouvernement chaque jour suñu xel manam ñàkk am luñu ñu leer ndax dina tax ñu yek mu yegg ci fi ci réew mi ñu jox ko suñu voix non grand ma leen waxante deug quoi ba légui ni bàyyi ko mu daana nga jël hmm, ba léegi nii hmm, dara du leer d'accord yow da nga am lu leer ci affaire Karim da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay lambatu rek da ngay lambatu da ngay tok ci grand place wax ni ni ni Karim est libre ou pas On ne sait pas. Très bien. Karim a volé ou pas On ne sait pas. Pourquoi Macky l'a libéré On ne sait pas. <laughs> mais c'est une question tonton. mais ci kanam ci tonton. ñu pas ko dama koy nangul li ah. pourquoi que les politiciens ont poussé effectivement. Mm, génneel mais nous, karimiste Madame, ñun la politique autrement nous sommes... comment. Nous, avant tout les frères lañu sœurs, nous sœurs ñoo Tout des seen ku ci am doom dañ lay teewal. Hmm. ku ci am dëj dañ lay teewal. Hmm. wàcceel la ay kaamil. Hmm. di joxe ay ndox mais ngi def ay plan d'action. yan yan plan yi xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw ah, xam tey lépp lu ñu def ñun ñoo ko defal suñu bopp moom li muy wax moom da ko waroon wax ku nekk ci pouvoir mais man politicien la mais maa gën a pauvre ñëpp yoruma donc loolu la yàlla dogal. li tax may politique maanaam man dama bëggul bokk ci ñuy seetaan. non pour temps rek. non non non loolu xam nga yow. yow mënoo yow mënoo xam sa gént xam sama gént. ñun bi ñuy bi ñuy dugg ci politique. dañu doon gëm toujours que ne politiciens yi. d'accord maanaam maanaam dañ leen dañ leen dañ leen def ay nit ñu dañ leen dañ leen def ay nit ñu bon. Mm-hmm. mais ñun dañoo ñëw. pour bokk ci ñooñu parce que ñun gëm nañ ne war nañoo mën a changer dara yow bu fekkee ne yow am nga tuuti dëggu bu ne ci yow mm. am nga tuuti tuuti euh, dëgg euh, maanaam bu fekkee nit ku normal nga yow mm. war nga mën a def politique xam nga lu tax mm. parce que yow say morom boo fa nekkee mais mu ngi politique sax moom xaaral ma ñëw xaaral ma fekk la fa ngeen gën a bari affaire bu yàggee mu baax mais su fait que da ngeen ne politique bi dafa bon ñu ngi koy baax politiciens mais politiciens nous les diriger. Comme ñu bon nous ñooy continuer di la diriger. mais am nga droit en tant que sénégalais. Ça xaaral mu dugal xaw nga seet nga ñëw dugg ci. D'accord, très bien gis ne aussi que ni euh, jot ngeen dem qui euh, ki nga mon ni président euh, mon mooy ancien président Wade. donc justement foofu. Mm-hmm. le, lu tax ngeen demoon ak mm-hmm. lan ngeen fa waxtaanee. Mm-hmm. foofu bi ñu fay dem. bon mooy moi, bi don, doon don ñu ci bim don doon don proposer doon proposé bim don bëggoon bi pour parti bi manam parti bi am candidat. donc dafa convoqué woon ñëpp. léegi nag mu mu lancer candidature mu ne dafa bëgg képp ku bok ci ci parti bi te nga am sa am sa carte de membre am sa lépp manam nga ñëw nga sañ nga présenter sa candidature. donc ci carte bobu la doon recevoir yi ñi ñun bi ñu dañ ko né carrément Karim mooy suñu candidat lolou lañ ko wax ñu ne ko yo sax. yow sax dañoo bëgg nga nekk eh, sax dañoo bëgg nga votel Karim mu ne man sama yoon newu ci waaw comme bàyyi ngeen ma daal ànd leen ak Karim bi a xam mais nag ñu waxtaan fa pendant deux heures de temps mu waxtaan ak ñun waxtaan bu am solo mu fàttali ñu lu bëri keroog laay soog a xam kan mooy Ablaye waat parce que ñaari waxtu ku ko toog ak kilifa réew kilifa boo xam ne Sénégal gii ak âge yi mu am ak expérience mu am muy waxtaan ak ñun fi parti bi jóge fi parti bi jaar ak fi parti bi fi parti bi ba fi parti bi tollu tey. Hmm. wax dëgg yàlla keroog jàng nañ fa lu bare bari bari keroog la ñu xamal nañu. Hmm. man bi ma daan génn di taal ay pono di rayante ak policiers yi boobu démocratie amul woon. jamono boobu noonu pour nga am say droit yi fële nga arraché ko donc loolu moo taxoon mu métti woon mais yéen am ngeen chance ñun xeex nañ ko.

à l'homme politique. Mhm. ak li ci enrichissement bu gaaw enrichissement bu gaaw bi. Mhm. nga xam fautif. c'est le citoyen lambda. Bah, moi, bah, je suis fautif. Bien sûr. Parce que si tu ne fais pas de la politique, la politique te fait. fait. la politique, vous prenez aujourd'hui le cas du Burkina Faso avec Thomas Sankara, Raoulins au Ghana, hein, au Bénin. Ce n'étaient pas des hommes politiques mais ils ont voulu apporter un changement par rapport à d'autres hommes politique. Mhm. ils se sont imposés. Mhm. Une politique autrement. Une politique autrement pour moi, pour man la politique autrement. mais au fait, ne ñoom dañuy ñu sommes non politiciens politiciens mhm. demain politicien moi, on va redire la même chose. et quand euh, nous, kan subir les conséquences. nous la population. ça veut dire tout simplement que nous, quand nous ku nekk des mais la politique autrement. politique boobu quand kon da ngay bénir ici, yi maanaam euh, kii di Karim Wade mon mon na ñëw moom day def politique autrement. non non non je ne dis pas non je dis Karim est déjà un politique. parce que dama gis bi ngay wax mu mel ni dafa gis boppam ci say wax naan un un kon ça veut dire que Karim. il fait de la politique autrement. non non non je veux dire Karim. Karim il est déjà un politique ça veut dire man ni may wax donc il est éliminé. ah d'accord ça li ma bëgg a wax que ñun citoyens. d'accord il faut que nous nous mouiller le maillot mouiller le maillot pour peut-être apporter un changement. je suis, très, euh, je suis un panafricain. Mhm. Je suis panafricaniste. Parce que euh, en politique, ils incarnent la politique occidentale. La réalité, c'est ça. Donc, dans la démocratie, la définition en réalité de la démocratie, c'est la dolécratie. tout est anglais. Si vous, lirez le livre de Ndongo Sambasila, qui a défini un peu euh, la démocratie en Afrique, aux États-Unis, ils créé la démocratie, c'était pour éliminer les pauvres. D'accord. Donc on a dit démocratie. Très bien. Et aujourd'hui, en Afrique, l'Olmoïdaou, en France, c'est un pays de démocrates, ainsi de suite. D'accord. Parce que nous, pour nous, dépasser Mais en Afrique, hmm. dès qu'il y a de bonnes élections, c'est un pays de démocratie. Merci beaucoup. Parce qu'on a, on a essayé d'éliminer le pauvre Sénégalais. D'accord, c'est important. Euh, Ouais, man, dama bëggoon justement si une euh, motivation en fait justement Yen Karim Karim une lan ngeen en même temps euh, le fait que ñu aussi si euh, si si marche bi passé ak opposition bi donc lan on est Manko au Sénégal bi ñu donc Yen, pourquoi vous vous sentiez concerné par cette marche et en même temps là moi nekk seen Taïdi, lan pour convaincre les Sénégalais. ne sais pas marchons euh, marche vous, il fallait que nous dem parce que tamit nañu waxante dëgg nous ah, ñun ay sénégalais lañu ci dëkk bi lañu Sénégal rek lañu am nous les Sénégal ñu gis en or gis pétrole sommes gis zircon nous ah, pétrole ah. gaz ak ah, gaz. bu hmm. bëri. waaw nga xam ne tey génération yii di ñëw yeneen génération yeneen ak yeneen ak yeneen mën nañ ko mën ñoo ciy bénéficier ñoo maanaam dina ci bénéficier wu Sénégal buñ ko tegee ci yoon. maanaam dina dina dina fi lay jaar naat ba faw. Hmm. léegi nag sunu jeunes yi sunu rakk yi ñu ngi jël ay gaz di dem ay Italie dem ay Libya di dem fu kenn xamul ci àll bi te seen dëkk am na or am na lépp donc man damay wax bu ñu dem fenn nañu toog fii. suñu or bi ak suñu pétrole bi nga xam suñu jurgóon bi ñu fexé lijjanti ko. Hmm. ñu ñu tek ko ci yoon ba Sénégalais yépp ku ci nekk nga am ci sa liñ ci war a am. d'accord maanaam jël ko di ko jox ay tubaab yu tekkiwul dara. Hmm. ñu jóge fële ñëw fii di ko exploité di ko yóbbu seen i dëkk. Hmm. ñoom ñuy ñuy pauvre ñuy ñuy am chaque jour ñun ñuy gën a torox. di dugg ay gaal di leen fa fekk. ñuy daanu suñuy doom ak suñuy rakk di daanu ci géej gi di dee ñun loolu lañ moo tax loolu loolu moo ñu motivé. parce que man loolu loolu dama ko dama ko dama ko daf ma yàgg naqari. parce que man pakaaw bi ma dëkk dafa am village yu bëri ko wër dèjà sama dëkk Jannaaba am na ay jeunes yu bëri yoo xam ne temps yële passé lañ leen doon suul. Hmm. ci géej gi lañu ñu lañ leen doon ñaanal ci géej gi lañu ñu dee pour dem Europe. donc may may may lancer benn appel jeunesse bi. Hmm. dañu ànd ak seen xel. te ñu toog fii ci Sénégal. Macky Sall moomul Sénégal. Hmm. président Macky Sall président Macky Sall moomul Sénégal. d'accord ñoom nañu toog fii te xam am nañ fi pétrole am nañ fi lépp. très bien fi toog fii teg ko suñu ndigg. jaajëf tek ñoom ba ñu ko ci yoon. d'accord euh, Abdoulaye 10 secondes. dama ben question bu ndaw rek. Mhm. est-ce que ni libérer Karim Wade ak condition yi lënd bi. est-ce que taxaw Sénégalais yi génn ci mom parce que man personnellement. gëmatuma ko quoi le fait que mu nangu ñu libéré ko nii kenn xamul. comme ci avion bi rek jàggar jàggar rek yóbbu. est ce que est ce que ko politiquement quoi. xam nga xam nga tey euh, yow man ñun man ñun da la dama la koy nangul ah. dama nangul en tant que sénégalais et puis nga bokk ci dëkk bi am ci sa xalaat mais ñun.

Mais les gumba eh, ça n'est pas de la politique autrement. non non non non non. confiance. Hmm. Nous, Karim dañ ko nous ba mu doy mouvement non Sénégal mais Sénégalais actuellement de il faut les convaincre hein. ah gis naa ñu bëri dañoo siis nag ñu bëri mer nañu nag de. non non non mer bi mooy li Abdoulaye di wax libération bi. non non mer am na fu ñu ko tegoon parce que gis nañu ne yu bëri euh, jàpp nañ ne tuumaal nañ ko ko mais teguñu ci loxo ñenn ñi commencé di ko wóolu di ànd ak moom di ci bokk mais biñu demee ba ci bii li ñu gis nii dalul xel. parce que ah non non moom bañu ko. moom moom mënu ci dara xam nga tey. d'accord Karim bi ñu koy jàpp di ko yóbbu kaso. di ko tëj maanaam karimiste yi

mais Macky Sall ne parler pas président Macky Sall mais la dal pour nous. donc nous sommes a bi kon hmm. non mais ci dara. nga dara. parce que yow yow yow yow en tant que rapport, yow en tant que Sénégal. yow en tant Sénégal. porteur de voix Karim Wade di sa concitoyen

waaw ak déedéet c'est des questions. légui lo wax boy wax ci Karim Wade moom xam mu leer. waaw waxal mu leer ma non dama né au fait man je suis pas pour ou contre mais seulement Karim. man bëgg nañ ko Karim bëgg bëggoon nañ ko fi baye ah. mu ne moom bu leerul du génn. waaw ah. man jot ko lire ci ay journaux. n'est-ce pas mais bi ni leerul te génn na. waaw t'as vu mom dafa né Karim guerrier la. Hmm. parce que dafa muñ. Hmm. mais lan motax Karim continue wul muñ. lan motax tax li mu njëkkoon wax. Insistez, vous tu loolu noonu non mais xaaral ah, grâce. na mu lay sol il est tout blanc. il est blanc il est blanc comme neige. loolu la wax mm-hmm. mu ñu ne Karim nañ ko. bañ koy ci ci réseaux sociaux yi affaire toujours après ñu ko. mais Karim il a accepté. mu dem il est libre on sait pas il n'est pas libre on sait pas ma def son tuddee ko waaw wala déet mm. waaw wala déet c'est juste des questions damay laaj mm. est-ce que jamaa ak or meun nañ niroo on me dit non mm. tu vois vrai ak faux meun nañ niroo waaw mais est-ce que daf leen tax a doon benn déedéet dama ma ne euh, suñu njiti dañu xif bëgg di ñaddu nguur lan motax mané suñu njiti dañu xif bëgg di ñaddu nguur parce que lay dafa ñëw mu ne deux mandats lay tok lool moo indi même problème Karim bi sax lool moo koy indi bo sété

Yanamar. mo la gën a waaw xamna lool xamna lool nanguna taw yi rappeur yi chaque jour on dit que rappeur yi lii rappeurs yi lee mais bo setlo la plupart sa yu metté ñom ñoy taxaw ñom ñoy taxawoon le 26 juin ah ne nguur gi daf fiy daf fiy le 23 juin le 23 juin le nguur gi daf fi jógee mhm. ñom ñoko xex xeex def sen ay affaire mhm. comme yow ni ngay taxawé pour Karim mhm. gars yi noonu lañ taxawé ne nguur gi daf fi jógee t'as vu pourquoi parce que parce que doyna tu vois mhm. te ba ñu defee ba ñu élection. que sénégalais yi. mais ñoom ko très bien donc merci beaucoup très bien donc Assane Cissé mom lañ fi invité won Assane nak ñu muy waxtaanee lépp li nga xamante soxal na ah, actualité euh, politique euh, ñu waxtaanee li nga xamante mo ci gënoon feus muy euh, Karim Wade Meïssa Wade ñi né Karim Adoua, une libération non savourée donc ci nonu rek nous passons de l'utile à l'agréable en compagnie de Sambou Biagui pour nous faire l'actualité sportive, c'est tout de suite. Très bien, donc nous démarrons l'actualité sportive Afrique du Sud contre le Sénégal. L'arbitre suspendu est privé de Cannes. Il s'appelle euh, Joseph Lamtei, euh, arbitre camerounais qui officiant le match Sénégal, Afrique du Sud-Sénégal. 2 euh, à 1, le score final de cette rencontre. Et finalement, la fédération avait protesté auprès de la Confédération africaine et de la FIFA. les instances internationales, notamment le comité chargé de l'arbitrage de la CAF, a tranché et a suspendu, comme vous l'avez dit, la l'arbitre euh, Joseph Lamtey euh, trois mois euh, trois mois nak demi, ci de dindé da fay fek da fay dafay li nga donc il est privé de de de Coupe d'Afrique des Nations. mais comme nous, ma ko que ne man dama sama xel dafa xaw daf ci parce que dans les préoccupations de la fédération ce n'était pas la suspension du du de l'arbitre c'est plutôt l'ouverture d'une enquête est-ce qu'il y, a corruption ou non par rapport en tout cas aux faits. donc lolu CAF Abdouci, donc c'est day poser problème. Hmm. Euh, moo tax may fédération dinañ relancer relancé lettre bi. le temps que peut-être FIFA prononcé ou dans ci très bien nous restons toujours euh, football avec la Ligue 1 euh, NGB contre Casa Sport choc de la troisième journée. c'était en direct sur DTV la fin de saison avec la Coupe du Sénégal 3-0 pour Niar Italie face au Casa Sport les deux équipes se retrouvent retrouve à la troisième journée à Demba et c'est Casasport qui vient également à Dakar. Casasport qui voyage très bien, surtout au stade de Demba Diop. Fofou, euh, match mu gagné, pratiquement Fofou l'a gagné et ce sera face à une équipe du Casasport euh, du de Niari Tali mi euh, journée bi passée gagné 1 à 0 contre l'équipe de Gadja Football Club mu match bo Hamantene, match bu am Ce sera donc demain en ouverture de cette troisième journée mais avant boobu dina am US Gorée contre l'équipe de nga xamante Douane. C'est le second du championnat le Jarab de Dakar qui se déplace à Génération Foot la dernière fois je vous disais que la Génération Foot avait très bien voyagé à Saint-Louis en allant battre la Linguère 4 buts à 3 marquer 4 buts à l'extérieur c'est pas évident. c'est pas évident pour une équipe. Euh, bleu entre guillemets parce que c'est la première fois que la euh, Génération Foot joue la Ligue 1. voilà, très bien. Donc après euh, la Ligue 1 du football sénégalais, nous passons à l'Espagne. Ronaldo, maire de Madrid. Maire de Madrid parce qu'il a mis trois buts il était très attendu. Depuis le début de la saison, on le voyait qu'à un cas. Cette fois-ci, il a réagi très rapidement mm. et dans un derby madrilène, hein, parce que c'était le Real contre l'Atlético de Madrid, deux équipes de, de, la capitale Madrid. 3 à 0, un triplé, euh, ce n'est pas évident. Et Nicolas, il est à 3 buts. Mm pour inscrire ses 500 buts de sa carrière. Waouh Ça veut dire mhm. que lors de la Ligue des Champions contre son club formateur Sporting Club de Lisbonne, s'il marque 3, buts, il va battre le record de parce qu'il va inscrire un but. Et paradoxalement, son premier but il avait inscrit en 2002 sous les couleurs de son prochain adversaire, par ailleurs son club formateur, Moui Sporting. C'était contre le Mainz. Hein, 1 à 1 à 0. C'était son premier but en 2002. Aujourd'hui, on est en 2016. Mhm. Il est à 3 buts, ans après. à 3 buts véritablement de 500 buts. Ce n'est pas, pas évident. Donc, avec cette victoire, le Real euh, Caracol en tête du championnat avec 30 points devant son, rival, le Barça, qui a fait euh, un, mauvais parcours, en tout cas en recevant à Malaga 0 à 0, sans Messi, sans Suarez. Hmm. Euh, le MSN était divisé en deux parce qu'il n'y avait que Neymar qui était Il ah, très bien, donc après l'Espagne, nous allons en Allemagne, à Dortmund, Lamine. Le Bayern. Le Bayern qui espérait rester à la tête du championnat euh, allemand, malheureusement. Dortmund, et c'est un Africain qui est passé par là, il s'appelle Aubameyang, le Gabonais, qui va accueillir d'ailleurs le, prochain championnat d'Afrique, qui a donc marqué le but, qui libère Dortmund, et Dortmund qui bat donc le Bayern, le, Bayern Munich, hein, l'équipe de la capitale allemande, et ce qui fait donc que Dortmund se rapproche un peu du leader. Et vous savez, le leader c'est qui C'est Leipzig qui vient de la deuxième division et qui est en train de faire d'excellentes choses, comme c'était le cas avec Leicester. Mhm. D'accord, très bien. Abdoulaye, on dirait que vous êtes fan de, football. Oui, oui, mon le week-end, je me pratiquement. Ah. Je passe toute la journée à regarder les matchs du dimanche. Très bien. Et euh, lundi a battu une équipe de la capitale, ah. c'est Bayern Leverkusen. D'accord, très bien. Donc après Allemagne, nous passons à l'Angleterre. Comté, coupe la tête de Sadio Mane parce que Sadio Mané moo nekkoon ci kaw won bi championnat ah Conte Jarfa, Antonio Conte moo Chelsea. Hmm. mu gagne. Liverpool mom mu def match nul. Antonio Conte moom mu gagné finalement Chelsea moom ci bop classement donc évident que Conte coupe la tête de Mané. et ça relance le championnat allemand euh, euh, le championnat anglais d'Angleterre avec bien sûr Arsenal qui se retrouve cinquième. Hmm. alors que l'équipe Bobo dirigeait le championnat pendant euh, quatre journées. le 5ème l'année Arsenal de Fadet match nul un partout mais un bon voyage face à Manu Manchester United avec un but du français Giroud qui est rentré dans les dernières minutes du, match. Très bon coaching. Très bien. Et pour finir, bien sûr, euh, nous allons à l'Alm... à euh, Handball. d'accord. Les Lions bouffent des Fennecs euh, en amical. 23-9 en match amical en France, à Puteux. C'est dans le cadre de la préparation des championnats d'Afrique de handball qui sont prévus du 28 au 7 décembre prochain en Angola, à Luanda. Le Sénégal qui se prépare en, France et a joué son premier match amical, c'était face au Fennec, les fenais qui sont qualifiés, qui sont dans le groupe B du Sénégal, équipe que le Sénégal peut rencontrer euh, en cas de qualification au second tour. Euh, face à l'Allemagne, mi-temps, c'était difficile, c'était 10 à 7, mais les Lions sont revenus à la deuxième mi-temps avec plus d'arguments en s'imposant 23 à 9. C'est bon pour le moral en attendant de rencontrer ce soir l'équipe espoir de la France et demain pour boucler la boucle avec le club Estela avant de s'envoler vers Luanda. Le Sénégal est dans le dans la poule du pays hôte, l'Angola est l'équipe vice-championne d'Afrique la République démocratique du Congo qui est présentement en France en préparation. Très bien, merci beaucoup euh, doyen Sambou pour l'actualité sportive. Euh, donc qui s'est performance nga xamante ni ko national ak euh, international. donc elle est en train de nous regarder mention spéciale à Hortense di Hortense bien sûr Nous nga xamante vendredi ñëw na fi ñuy def émission bu donc nous avons koy encouragé Nous avons félicité bu donc vous avez fait rek ñu jublu tuuti ci. Kourou hein, Kourou Mandjou Mori

suis jeune rappeur là, bu commencé en 2010 euh, nekkoon ci un groupe par la suite. le euh, groupe euh, groupe bu Max Def Mac Benemit. après par la suite. on a Mac benn Ousmane dégg nga lu mu wax maag benn nit. maag maag benn fexeel ba nekk ak <laughs> bokk groupe ak benn benn benn garab. benn chef benn chef wala benn yow lii la la yow. Eh, ah, xanaa yu xuloo xanaa yéen ñaar. je je damay refoulé. da ngeen xuloo non xuloo vous avez des soucis. non non pas de soucis. non mais attends non ak Pi euh, Pidou sama frère la. mais nag nga ma mën a wax nekk ci benn groupe ak benn nit. c'est c'est c'est venu c'est venu comme ça. parce eh. que xeexu xeexu concept. ak Yakham ak Youssou Ndour. Ah. du bind Youssou Ndour de day naan diw. Ah. <laughs> saa yu demee chronique am wala mu tudd mu ne diw avec ça diw avec ça. d' accord d' accord d' parfois moom dafa nekkatu ci quoi bugutu bugul may wax. dafa bàyyi rab waaw bugul d' accord non mais bu te du xam damay bañ a. mun na bañ a wax bëgg ma wax turam quoi. Ah, donc ñu arrêté ko Diop ñu arrêté Diop bi ñu dawal benn euh, après Xumaan. Euh, dafa contribué gën man xuma gën man xuma dafa dafa contribué bu baax ci sama carrière. télé bu ma dem dama koy wax quoi. tu parce que ba ma kenn gëmulee moom moom bokk na ci nit ñi ma njëkk a gëm ci live bi. Euh, jox ma tous les moyens ah tous les moyens. mais da nga dem ba jël sax léegi su. Xuman euh, non jëruma ah. moom moo ma fàndi après mujj di ma toppandoo. Ah <laughs> man. ñu bëri ak déedéet bi. dama ko ko ci invité. ah ko ci mooy. mais parce que moom noonu la yàgg di tegoo. ñun bi ñu koy déglu jamonoy Pi France mu nekk lu yàgg. ah euh, ñun noonu lañ ko mës déggee. Ah, dafa am ay affaire yoo xam ne da nga xam ne lii identité am la. ok dafay gis boppam man peut loolu moo tax mu. d'accord mu ne dafay produire sama album ah non, ah non bu baax a baax ah, d'accord xumaan yoo fan d'accord après. mais en fait peut-être dafay peut-être dafay gis boppam ci man. moo tax ah, c'est important daf may produire sama. déjà dafa war a en janvier bii nii nii presque pare na. Ah. bon boobu ba ma maa ngi ci bi ma doon sama premier single mooy waaw ak déedéet bi euh, ci référendum bi def naa. en tout cas ça fait le buzz hein? Ouais, ouais. Ouais. Euh, ci référendum bi defna benen son moy déet ak déet bi ngay bi don dawni ni la moom la opposition bi sax euh, doon don don don campagner. tu vois

c'est grave ci nguur gi franchement wallaay la dëgg la gis dem gis parce que bañ ma tëggee prix bi sama noppi da doon riir quoi <laughs> ma dem gis xumaan <laughs> comprends ma dem gis mm. ma ko ma ne ko grand ah yi li lañu wax de xumaan ne ma man ba ma nekkee booy fay nañu loo pëli mais musuma rel yow tu vois parce que xaalis jaru ko sa carrière yow li nga mën a lekk ci musique

Quand je disais Satch je faisais allusion à ah, Karim. Non, non, non, non, xam nga problème bi non, non mais ko tu ni nga mel non, la ñëpp mel. man

non foog nga d' accord ne MIP wala DIC sañ nga weddi ne dëkk bi dafa maki gars ma non ma ne leen mi ngi leen dal ñu ma waaw yéen a ngi mais loolu ngay bi est-ce que yow bu ñu la ko doon laaj yow loo ah, ma li ma sentir laa bind waaw ah, mais yow yow est-ce que vous sentez li bind dama ko gëm li bind dama ko gëm dama ko gëm moo tax ma bind ko parce que mënoon naa mënoon naa jël xaalis mënoon na jël xaalis bi ah mënoon naa principe du ma ko jël. par principe du ma ko jël amuma amuma mais damay gore ba dee. amagoo parce que non waaw amaguma. amaguma mais damay gore ba dee. mënoon naa ko jël mais dama su ma ko jëlee tu vois dafa mel ni damay wor damay wor quoi du ma def. tu vois li a la doon wax encore ci rappeur yi. bëri na fa ay leader. mais may man maay man maay wax. Ah, parce que yow. parce que may ko mu wax tuuti rek. parce que bi moo ko def. demal moo am na lu xaaj bi gañ def na ko waaye yow tamit defe naa beneen xaaj bi yaa ngi koy def. ayca waaw léegi bon dañu bañ.

non non waxuma ñu am na ñu ma wóor sax ñoo xam ne ma mere ci pet. tu vois xaalis moo demee noonu. il te dit que yow chaque jour yaa ngi def mais somme bi ñaata la woon exactement soxlawu ñu nga wax kii ñëw kii la non non non non. à peu près cinquantaine. à peu près. non pas pas pas. trentaine Wow, genre. Hein? genre genre quoi. trente tu vois non je suis pas patriote je suis pas patriote. est-ce que ko wax. tu tu tu sa patriotisme ci li nga wax à peu près ci côté ci côté Tu la. Ah, mais mais vois, tu mais, parce que déjà xam nga lu bëgg xam som som bi. Mm. parce que il faut reconnaître que c'est un patriote. d'accord am na ñu bëri ñoo xamante ne dañoo def yow li nga bañ. Mm. mais bëgg nañ vraiment ñu xam ñaata la som bi lan la. doguma la waaw gis nga rappeur bi ko nangu def. Mm. rappeur bi ko nangu def. waaw 300 000 francs lañ ko fay. d'accord. donc. très yow ñu posé woon la ñaata. man ma daf ko jël ah. daf ah. ko jël te xam naa ko xamante nañ. voilà tu vois donc si tu me dis que man duma patriote tu te dis que <laughs> waa yaa naa maar lii waa yaa naa maar da ngay da ngay très bien merci beaucoup Papa Ousmane man dama bëggoon juste rek nga nga nga wax ma euh, texte

d'accord ndax fa la question mais ce qui est sur les certains, c'est que tu riche ba paraît ni vraiment des femmes originales. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Papa euh, Pape Ousmane Sissé. Euh, on se donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Hein, donc, euh, tout à l'heure, Inch'Allah, Hamna Yaïd Fribar mrahi. En attendant, nous vous proposons une page de pub pour que des nous recevoir Valérie Minga Khamantene, l'actualité musicale, c'est tout. ak maam waale nga li war eh, way nekk nag ci sa deret góorgóorlu ci yàlla baax bi mooy nekk sa premier grand événement xam ne nag yaa ngi ciy woo say moroom di ci woo ñi nga bokkal eh, di ci woo say xarit eh, artiste comme yow. donc di ñaan a ñu yegg ci jàmm ak salaam. leen ci woy ñëpp ngeen teewoo ko nag parce que loolu jën ndox. le 27 novembre terrain golf bu kenn rate heure bi bu fa fokkul nag ma daj fa kon sama gars yi le 27 novembre mat sa waay dina tàng dina neex fii ci golf kon maa ngi jox ñëpp rendez-vous maa ngi woo ñëpp Waly Family ku ci jiitu rek dama lay décorer fils de Maren, de son vrai nom Manga Sek, véritable ambassadeur des jeunes. Moi, fête anniversaire le dimanche 27 à Guédiawaye, je terrain Golf Sud. À partir de 18h, concert gratuit. Pour Wonak, Papam John Sek, Wachi Papam Mapende Sek, Papam Ousmane Sek, Papam Hassan Wali Balago Sek, Bambali Sek, tous les Faramarènes réunis autour d'un micro. Attention, ce sera sous le parrainage de Monsieur Aliou Sal, maire de la ville de Guédiawaye, Andechek bala 2, Aïta Chaoulai, Lay Lai Lai Lai Makhtar Seynek Alassane madame Mbacké ñu koy wax député Fatou madame Diallo Fun City Fallou Omar Sow Serigne Dame Bébé Basgagne, Bachima Massamba Diop Cheikh Cheikh Palmas Iboulay, Ahmed Sougou le grand Amadouba, ministre de l'économie et des finances et là Jumali Gakou l'homme de la banlieue dimanche 27 novembre ambassadeur Oufara Faramareen yee Woté, terrain golf sud lañ jëm du yomb merci de nous rester fidèles sur les antennes de la DTV, toujours dans Toi, même tu sais. Elle vient de nous rejoindre sur ce plateau, euh, la belle Valérie. Bonsoir Valérie. ça va tranquille bien. Ça calme. calme ah, en tout cas, avec beaucoup de spiritualité déjà. Donc, euh, c'était magique comme, euh, comme chaque Magal bas. Donc, euh, cette année sénégalais catholique hmm, très bien merci beaucoup Valérie tout à l'heure nous l'actualité musicale en attendant nous allons vers Adiara Sissé pour la deuxième partie de l'actualité de l'internet donc toujours à urgent. 9 Nigérians, arrêtés à Wakam avec deux cars remplis de mineurs. Effectivement, une histoire rocambolesque secoue la localité de Wakam. En effet, ce sont 9 individus dont 8 Nigériens qui ont été arrêtés à Wakam avec deux cars remplis de mineurs. Ils sont confiés à la gendarmerie euh, deux fois pour la suite de l'enquête. Parmi les personnes arrêtées figurent une Sénégalaise, une autre Nigérienne et est en fuite et est activement recherchée par euh, les euh, euh, lignée. En attendant les révélations de l'enquête, on ignore pour l'instant les motivations de ces derniers qui étaient, eux, dans des voitures 4x4 et on ignore aussi la destination des jeunes ramassés euh, par euh, les Nigériens. Donc justement, comme nous... Ah, ne 9 dugal leen <laughs> ay nit ay nit bul ma jox mu ko. Ah. <laughs> d'accord Ça biyaay gi urgent neuf Nigériens arrêtés à Wakam avec deux cars remplis de mineurs. Oui, c'est d'abord une révélation de la DTV qui a eu très tôt l'information hier nuit. D'accord. C'est vrai, hein, d'après euh, dernière minute. Hein. Voilà. Donc, euh, alors, nous avons créé le dimanche ci euh, l'as ñu alerté ñu il y a la gendarmerie qui fait euh, de la patrouille mais bon patrouille le matin c'est c'est loolu le monde na mm. alors comme ça bi ñu avec le flair de journaliste alors bi ñu génnee ñu ma jubal directement gendarmerie alors finalement fa lañ leen fekk euh, fekk fa ku mel le président Ndoye ni nga le moment moom moo njëkk moom ma njëkk woo ma informé alors bi ñu demee effectivement euh, naa ba ci biir fekk fa

seen doom yi lañ yóbbu d'abord abord euh, gendarmerie bu mu jëlee affaire bi daf leen laaj ana xalé donc puisque ñom dañ leen bayoon woon c' en garde à vue ñi tok ils ont appelé pour que ñi mën indi xalé alors xalé bi ñëwee xalé yi gis nañ ci 19. 19 ñu bayi leen kenn ku nekk nga ñibi sa kër mais amna ño xamantene xamante ne gisuñ seen doom bon motax ma ma ma tàll micro keneen ki koku dañ ko wo bo mu ngi si yoon Touba mu ne ko sa xale sa dom bi ma dénkoon gisuma ko suba ba alors mom non la rallier directement gendarmerie bi mu fofu. foofu euh, mu constaté mom domam bokk ci donc mu ngi wër doomam ba dellu si guddi ba ba ñuy taqale ak moom mu ngi wër mu wër doomam gisu ko am na ci nag ay morom ñoo xamante ne gisuñu mais li ci gën a garaaw mooy euh, ñooñu bi ay ñaari car lañ indi mm. ñaari car super mm. peesal leen ay ay xale te dañ lay jox suukar dañ lay jox ceeb jox la diwlin

à la gendarmerie de Foire pour la suite de, de, de la... D'accord, en tout cas, l'enquête suit son cours. Euh, lu ci munti am rek dinañ ko gën a ak Adjara Cissé borom Actu Buzz en attendant ñu dem ci li nga xamante ne moom euh, l'actualité de Avec high tech la haute technologie ki koy def muy Abdoulaye euh, lim ci wax nak moy la chronique sur le digital détox donc xam ngeen né tay lim ci wax rek moy la désintoxication numérique hein mu and ak ñaari application ñu and ak Abdoulaye c'est tout de suite donc la chronique euh, sur le digital euh, hein, ah je nga indi donner donc nga nar ci waxtaanee li nga xamante ne moom mooy ñaari application il di en ak effectivement Nicolas comme ni nga ko nous rek dañuy digital detox donc digital detox le signifie en français c'est la désintoxication numérique donc si on a une idée de désintoxication cela veut dire que le stade de consommation nous nit dépassé ko si on prend le cas de la drogue ou bien de la cigarette si nit ki demee ba affaire faut overdose donc il faut ñuy qui kii jot nañu désintoxication Donc maintenant, on parle de désintoxication numérique parce qu'en France, aux États-Unis, on a remarqué que maintenant les jeunes sont tellement devenus accros faux numérique. léegi même fii ci plateau. même en Afrique tout en Afrique tout un chacun. non ba léegi moom moom dañ ko wax non effectivement. Valérie on dañ koy désentoxé. kii moom kii Qui yàqu na ba pare aywa moom effectivement j'ai remarqué ça. Je ba émission bi di commencé gis naa ko muy def nii. tu vois genre te auparavant boo ko doon def xam nit ñi dañ doon wax mais kii est-ce que wér mais maintenant c'est devenu tellement normal et banal tu vois tu te permets devant les gens de prendre ton téléphone. de faire des gestes xam nga di def nuyu di une bouche de canari. Ah, tu vois ah, les gens sont ah. devenus tellement obsédés. yekk añ bu ñu yekk ñu def ko reer bu ñu yekk ñu euh, léegi lépp la ñuy def lépp. loolu sax pour man bon grave parce que ça te concerne mais gis nañ ci yenn dëkk yoo xam ne nit yi dem nañ ba ci dee. parce que souvent ils veulent faire des selfies mortels dañuy dem ci benn montagne taxaw tu vois. souvent da ngay seetaan ay vidéo yi nga xam ne se lancent des défis dañuy dem ci benn immeuble boo xam ne c'est 80 étages ñu yéeg ci kaw. langal benn tànk di photo. donc souvent dafay dem ba jur ay accident pourquoi parce que c'est ils sont amoureux des likes des j'aime donc tu es prêt à tout faire pour avoir 1000 gemmes ou 2000 gemmes. Souvent, on voit des. Tu vois, il y pour me proposer, pour me de conséquence. tu vois. d'accord téléphone tellement ils sont concentrés sur leur téléphone portable. Non, je t'assure, tu vois. Et moi, ce qui me fait le plus mal maintenant à l'école, auparavant, nous avons jang dañ doon téré euh. dañu doon téré téléphone portable. Mais lui, il wax ni Khadijatou Ndiaye euh HLM Padois la dëkk euh day def li les gens, ni comme les nga ils utilisent day utiliser téléphone en ba taxi ba yéeg ci kaw wàcc ko. du ko yéeg di dox nekkaat ci téléphone en ba tey. nit dina manipuler téléphone am ba merci beaucoup d'être ci force. si on en voit de tous les. tous les jours tu vois. maintenant les médecins tu vois c'est pourquoi je ne xaaral ma proposer leen sketch. c'est un peu drôle mais euh, c'est un peu drôle mais quand même dafay y a des nit par rapport au niveau de de de d'accord. maintenant pourquoi comment L'autre, il y ñu des désintoxication numérique et là, moi, concept maintenant maintenant y a des camps de vacances qui sont proposés. proposer on appelle ça des séjours déconnectés c'est-à-dire vous venez à l'entrée on te confisque euh, tous tes appareils numériques que ce soit ton téléphone portable que ça soit ton appareil numérique même les montres connectées donc tu restes 5 jours ils vont te permettre de vivre une vie paisible quoi naturel parce que ñun dundatuñu ñun dañu Nous ak garab yi ak animaux yi mais ak ñom donc par exemple toi tu préfères ne pas parler avec Valérie qui est en face de toi tu préfères parler à une personne que tu ne connais pas qui est à des centaines de milliers de kilomètres. Donc tu restes scotché. Moi j'ai vu des couples personnellement qui ont ce genre de problème. Tu vois, souvent je un problème avec sama jabar. ñu wara waxtaan. nekk ci WhatsApp bi je m'énerve j'ai cassé son téléphone à cause de ça tu vois sagam man mi nga je travaille man maa ko jënd bon su ma neexee ma toj sagam <laughs> man mi ciy liggéey yar ci sama bopp de telle sorte que su ma suñu kër je me consacre à ma famille je me consacre à mes à mes études tu vois je me consacre à mon travail pourquoi nit yi du dem ñoom aussi ñu ñu ñu désintoxiqué ba yegg ci niveau boobu noonu te si jigéen ñi la est a fës ils ont des téléphones extrêmement connectés, quoi. Donc, ils sont connectés, ils sont, ils sont Valérie, fais pour les, pour les connecter. Tu connais Instagram, WhatsApp, Snap, Facebook, Messenger. Euh, affaire Periscope, euh, Periscope. péri euh, périscope. périscope euh, Valérie est connecté. pour te dire il y' a même un mot vous ñu bu la nomophobie non Nomophobie, c'est-à-dire c'est l'anxiété, quoi. La peur de ne plus avoir son téléphone portable avec soi. Mm. Maintenant, la peur, d'être déconnecté. Les, maintenant, oublier son téléphone portable à la maison, c'est pire qu'oublier ses clés. Hein? C'est pire qu'oublier ses clés. Adira, là, je suis perdu euh, parce que j'ai pas mon euh, téléphone avec moi. Mon collègue, non, je rentre à la maison. Si vous dites le mieux au Moyen-Âge, tu vois, c'est un problème. Elle, va mourir, donc, je m'excuse. voilà. Maintenant, il y a aussi les, les cadres d'Apple, imagine, écoute bien, les cadres d'Apple, d'IBM, de Facebook et de Google, c'est les personnes qui sont en contact permanent avec la nouvelle technologie. Nous avons des inscrire les dans des écoles, école low-tech. L'école low-tech, c'est le contraire de l'école high-tech. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de tablette, il n'y a absolument rien du tout. Il y a des bibliothèques classiques, comme auparavant à tu vois. Donc, les, nous avons des inscrire l'info c'est pour leur offrir la chance de découvrir c'est quoi la vraie vie être en contact avec la matière parce que lecture livre beaucoup de tu sens la matière c'est là que tu vas mieux maîtriser ce que tu tu ce que tu il y a des applications léegi application yooyu dama bëgg ngeen indil ma ko lundi fu mu toll nii ci désintoxication bi rek waaw laa bëgg nga nga nga nga ñaax ci sénégalais yi ah gën leen ci euh, waxtaan euh, ngir ñu xam sensibiliser leen lundi incha allah on va parler des deux applications il y a pas de souci et puis c'est un peu paradoxal que ñu naan dañuy désintoxiquer euh, les téléphones portables di utiliser application donc peut-être aujourd'hui je vais pas parler comme ni nga ko waxee tënk nga ma ci désintoxication bi yam il faut ñu il faut ñu jug ah, parce que man Snapchat boo ci duggee da ngay gis ku toog jàkkaarloog profom di ko snap kooku lan lay xam. coucou Snap. coucou si xam ba dem ba def wooy coucou Snap. C'est infernal man xam le premier jour bi ma seetaane télé. nu mu tudd. wooykat bi. lu mu def wax coucou Snap. Man, ne attends on est où. waaw ah, mais non mais actualité la thème d' actualité la dafa gis ne dafa gis ne jamono jii nii xale yi. ñu ngi koy utiliser bu baax. gis ñoom dañuy sañse

voilà maintenant ben jour dama def ben post ci Facebook quoi gars bon c'est un peu bête mais quand même amna na ah. je dis que bu fekkoon le nombre de likes que tu as le nombre de partages ou bien le nombre de commentaires faut demande à la banque ni wéti la ko ça ça allait être plus intéressant quoi comme que tu te dénudes des likes des likes mais bon, amul un am de mais les stars américaines euh, like nombre de gens follower nombre de de qui? non, non, ça c'est Google AdSense ça c'est Google AdSense c'est un service hmm. la like like yi dañ koy fay non non like yi fayuñu ko de mais non, nan nan non, non, non, non, non. attends je yaa euh, dafa am Google AdSense xam nga Google moom moo jënd YouTube mhm. léegi parallèlement dafa créer benn service bi tudd Google AdSense léegi Google AdSense boobu moom la ñuy euh, relier ak YouTube par rapport au nombre d' abonnés par rapport au nombre de vues et au nombre de commentaires qui les fait. C'est pourquoi tu vois maintenant nos sites d'information nous servent du n'importe quoi. Ils ne, ils ne, sont plus sérieux. Pourquoi Parce que les, il y a l'enjeu de l'argent qui se cache derrière. Tu vois, ouais. les, comme Karab, à quoi cette information peut nous servir Nous disons que Google que font Là, ils gagnent leur argent. Tu vois Il y a l'autre. J'étais choqué de voir ça. Les il faut faire très attention. waaw. non bien regardé. léegi mu yëg ci kaw mbaam bi. paa bi paa bi koto. di ko di ko am na nit gars yi di ko atte naan ko baal. mbaam bi moo ko féete kaw quoi. baal ko bul ko baal jàppal xam nga yërëm ko xam nga. ah dégg naa xaw na ko rek sa mbaam la xam nga non c'est c'est vrai c'est vrai looloo tax comme je dis site d'information yi léegi sérieux tuñu quoi. parce que enjeu xaalis bi nombre de vues su ma ndax man dama don def ay chronique dama am page nit yi dañ don jëlat sama ay chronique sama chaîne YouTube télécharger ko def ko sen chaîne YouTube def ko ci sen ay site web tu vois donc respecté wuñu les les les critères du droit d'auteur et trucs de ce genre parce que dafa am xaalis fi bari na lu fi wara client ah, donc prochainement dina la wax ci application yi c'est des applications bu père de famille wala mère de famille bu nek war nga ko mën utiliser parce que da lay permettre ngay contrôler à distance téléphone portable sa dom hmm. de telle heure à telle heure bu mu dugut

nga xamante ne moom la doon waxtaane muy digital détox donc en cela nous passons à la l'actualité euh, musicale présentée par Valérie euh, tey nag dossier bu am solo la ñuy indil muy Très bien, donc nous démarrons avec l'actualité musicale. Nous un dossier de si zouk là, zouk voilà donc euh, mon bokk. koy zugal ay sambiak, zouk voilà donc damay yàgg donc comme nous mu ko tout à l'heure donc taille damay ñëw fas yéene ñëw ci li nga xam genre la ci musique des îles donc mon bokk na ci genre musical bi nga xam ça vient des Antilles donc boo déggee Antilles faire regrouper li nga moi ne Martinique, di Martinique euh, itam Guadeloupe donc na ñu fësal ko dans les années 80 surtout que euh, par le groupe Kassav donc si on se réfère ci li nga xam ne moo dictionnaire Petit Robert. Mm-hmm. <coughs> c'est un genre musical en même temps aussi danse mais très rythmé donc très rythmé boobu non, dafay ëmb li nga à ramener instrument moi yi donc Kassav a fait fait ñëw euh, indi li nga xam ne Zouk c'était en 1980 donc leur premier album euh, Zouk c'est sorti en 1981 donc c'était un album entièrement entièrement li nga ramener essentiellement fait ci li nga xam rythme Zouk donc le groupe Kassav itam génne itam ay son yu bees ku ci mel euh, nga ko ci moo un ay rythme basse jëlé ko itam ci nga xam rythme clavier way itam li nga xam euh, cuivre parce que cuivre bobu non rythme doon gëna yok li nga euh, rythme zouk bi donc nak lolu mo taxone ba rythme yu bari mo jox ko zouk li nga étiquette donc musique vivante euh, en même temps dansante mais aussi qui fait vibrer donc lolu itam après l'euphorie aussi des années 1980 ñu dem ba année 2000 donc année 2000 cette fois-ci dañu ñëw ak beneen génération groupe Kassaf Djalana. donc mu ñëw ay génération génération Thierry Cham donc tout au fond des océans ñun ñëpp ñu ngi koy fàttaliku ñoom Sly donc ñoom Perle Lama ñoom ñëpp ñu bokk ci boobu génération donc nous ñu apporté ñoom itam seen touche mais cette fois ci zouk bi dañ cee boole li nga pour être plus proche de la population française ñu boole ci li nga xam ne arène bi donc mu nekk un peu de arène bi zouk hum. donc en même temps itam changement bi nee nañ zouk boobu dafa dem ba léger parce que ñi nga xam ñoo daan ba temps kasaaf yi fi da daan yëngu da nga daan fecc zug bay ñak mm-hmm. mais bi yow na ngay fecc zug kasaaf zug machine ah. voilà donc zug machine ak tamit euh, zug duka donc yo tamit yépp ci la bok mais jamono kasaaf da nga daan fecc ba ñàkk alors que zug bi ça devient de plus en plus léger parce que dañ ciy supprimer li nga xamné moy du cuivre bi donc du coup tu peux danser zug mais de manière très classe sans pour autant que tu sois épuisé et tout donc euh, ñoom sen touche bobu lañ ci apporter way itam benen touche bi modi d'habitude dañ ci dégg ci seeni langue moi c'est la langue créole donc le créole des Antilles. mais cette fois-ci y a indi un changement cette fois-ci ils zouk en français donc euh, ñoom Perle Lama ñoom Slay ils ont zouké en français donc euh, bu ñu jógee ci loolu itam ñu intéressé wu ci li euh, zouk ici en Afrique parce que nee naa la dem ba regrouper li nga xam ne c'est presque tous les pays lusophones donc qui parlent créole donc euh, sauf à part euh, le Sénégal parce que le Sénégal c'est pas un pays lusophone mm-hmm. donc du coup d'un nga Guinée-Bissau d'un nga ci Cap-Vert d'un nga ciy Guinée équatoriale parce que nous tam dañuy def li nga xam ne zouk mais surtout surtout Guinée-Bissau fofu de mën nañ Cap-Vert Cap-Vert voilà mm-hmm. donc fofu le terme ay Cabo sax gën voilà donc tam Cabo kabo verdi show yo yëpp donc euh, ci terme yo le.

fekk na ñoom euh, Cap a ak Guinée Bissau jël nañ rythme zouk bi parce que ñoom euh, zouk bi dafa demoon bay daanu mhm. ñoom ñu jël ko rythme ko musique très bien voilà donc euh, c'est vrai hein autant pour moi Jocelyne Biroa voilà donc mobile donc euh, pour terminer euh, Zouk n'est pas le. depuis les années 80 et l'église mais gars une ñu révolutionné cependant à leur manière mais li nga xam ne itam tendance Moi, ils ont maintenant tendance à li nga xam ne délaisser li nga xam moo Zouk mm. donc maintenant ils ont gën a jël mm. donc ont itam boobu itam muy style de musique ils ont dinañ ci ñëwaat ci bu mm. en tout cas Zouk daal on est nek nak nag rythme instant yi damay appaat fum nek ni dama son d'accord très bien merci beaucoup euh, Valérie pour l'actualité euh, musicale tay gis ngeen dossier bu muy indi muy euh, dossier les îles ñu demoon fofu ci fi nga xamantene moy zouk morceau boobu musique boobu nga xamantene fecc nañ ko année 80 90 ba jamono ji waye Kizomba ëpp na leen doole ci jamono ji ni le grand tey nii ban mot de la fin ngay joxe wax ñu say projet c'est vrai que janvier ngay génne sa album mais naka la mëna xaaré album bi rek

Mhm. mooy algèbre de boule voilà donc euh, c'est album bi Xuman Moko produire Label Xuman moi, Native Dread Entertainment mhm. moom moi ko produire donc dina euh, janvier euh, de passage moi mën naa remercier waale samay parce que chaque fois artiste boo moi moom mooy taxaw ñu day ay ay de l'ombre yoo xamante dañuy nekk dañuy nekk ci suuf mooy ñaar ñi ma àndal euh, Daour Ahmed Garmi qui sont des collaborateurs non samay sama staff lañ am ay da ngay damay am ay copains transitaires ay trucs mais saa ma waré génn bu wala dem dañuy tëj seen atelier ñu dañuy arrêté job dañ may wo téléphone ñu jël sama maag auto oto yóbbu pourtant li may def mëna na leen intéressé mais man man man man man la man lañuy support voilà ku ci melni ni Feno hmm. Jogomaay sama gars yëpp yi nga xamante ne japp ma ngi maa ngi Mandi Mori euh, donc voilà dañ lay bàyyi nga dem sur scène en attendant ñu wax Assane Cissé wala euh, mun nga toog ah mun nga toog noonu ah, mun nga toog voilà bu ko défé ñu jéxal en beauté euh, le mot de la fin Assane waaw xanaa di leen remercier vraiment ci invitation bi ak seen plateau bu yànj bi ak gars yu baax yi nga xam ñoom laa fi dajal voilà mënu ma wax mënu ma terminer sans pour autant aussi ma masawu coono euh, samay collègues yoo xam ne mooy waa ABS SA mooy société boo xam ne dañ ko attribué woon Karim gars yi nekkoon ci di liggéey comme yeneen société

et eh, voilà très bien donc tout à l'heure nous avons un ki nga euh, sama wadi Ousmane Cissé hein, avec sa jolie cravate bien sûr ah, donc tout à l'heure mu jox leen xibaaru programme na DTV euh, c'est la magie de la télé plus haut plus loin plus fort tous ensemble avec la magie de la télé DTV merci beaucoup on se donne rendez-vous demain 17 19 TMTC